baax euh, Sénégal 7 mu ngi ànd ak yéen ba léegi si li nga xamante ni moom mooy événement wu tey bi ndax xam ngeen ne depuis suba gi ba léegi ñu ngi ko dooree fii si diwaanu cité kër góor gi ngir toppal leen lépp loo xamante ni ñeel événement bu procès usman Sonko ak ma Mbaye Niang waaye jamono ji nag nga xamante ni euh, Ousmane Sonko bi nga xamante ni léegi léegi lañ ko rek daal di jëlee këram fii si diwaanu cité kër góor gi ngir mën ko évacuer fi nga xamante rek moom mooy si buntu euh, clinique suma assistance bi nga xamante ni. Euh, foofu la ñu nekk jamono ji euh, si fàttali na nag euh, bu ñu fàttalikoo tey si suba gi nga xamante ni Ousmane Sonko bi muy dem wuy ji fële sa duwaanu tribunal waaye bi ñu tollee nag si rond bi nga xamante ni mu nekk rond point Mermoz daanaka foofu sax la la série manifestation yi daal di tàmbali ginnaaw nag bañ doon dóor grenade lacrymogène gazé foofu noonu yëpp moom nag wax na ko si communiqué bi nga xamante ni moom Ousmane Sonko bindi na ko nee na nag rawatina nag euh, biiram gi dafay métti ginnaaw ba mu daak daal di nooyee xeetu grenade lacrymogène bi euh, beneen bi mooy bokk na si li nga xamante ni moom Ousmane Sonko wax na ko ne euh, dafa am problème nokki maanaam ni muy nokkee dafa daak daal di jéggi dayo lool mu ngi doon sax artu également si jamono joo xamante ni bi ko waa suma assistance jëlee ngir mën ko évacuer nee na oto yi police da ko rek daal di Euh, rek bloqué ngir bañ mu àgg fi nga xamante rek am mooy si hôpital bi euh, loolu nag mu nekk ay mbir yoo xamante rek moom Ousmane Sonko daal na koy wax si euh, jamono ji nag ñu ngi fi nga xamante rek mooy si buntu suma assistance ngir ñu fas yéene topp leen li nga xamante ni rek alors moom mooy boobulee mbir ndax jamono ji nag mu ngi fi ndax gis nañ ni euh, ñi nga xamante rek ñoom ñoo di ay élément de sécurité euh, jamono ji ñëw nañ nag si buntu euh, clinique bi xanaa damay ànd ak donc sama cadreur ñu fas yéene rek daal di ànd ñu doxantu su ko defee ñu xool ba xam ndax dinañ mën a am réaction par rapport ak ñi nga xamante ni rek ñoom ñooy quelques-uns yi nga xamante ni dañ fee ñëw salaamaaleykum alors maa ngi leen di alors yéen a ngi en direct ci senegal est-ce que mën naa am seen réaction par rapport alors grand ça yaa ngi si Sénégal 7. d'accord ngi noonu voilà daanaka voilà jërëjëf tey ci ak bi merci jërëjëf déjà ñu ngi ak Thiat Thiat euh, ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu yaa ngi en direct jamono ji ma bàyyi la nga joxe réaction waaw bon dañuy ñëw pour xool qu'est-ce qui se passe donc euh, xamaguñu li xew mais on parle de tentative d'assassinat donc c'est c'est important que les gens viennent savoir lan moo xew voilà loolu la. par rapport ak Ousmane Sonko lu mu passé ne wér gu yaramam demee noonu ñu daal di ko évacuer c'est justement pour par rapport à ça moo tax ñu ñëw mais buñ génnee après ñu va voir. d'accord muy noonu muy noonu Aliou Sané ak caat euh, jamono ji ñoom ñaar euh, ñu ngi noonu di dugg voilà Aliou Sané